du ko di xam ñu def test mu négatif ma ne ma ne nga ma banaa la Sonko ma suñoo juboo waaye est-ce que maa bañ injustice nga bañ ko nga nangu ko daa taxaw dëgg rek mu négatif ma ne ma Sonko ma suñoo waaye est-ce que maa bañ injustice à partir d'aujourd'hui nga bañ ko nga nangu ko daa taxaw fu nekk défendre la ndax dëgg rek moo ma ñor ca la ma sama xel ma Sall